الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي ورجل كي آية 149 في سورة آل عمران ci suñu borom di waxee ne yaa ayuha allazina amanu in tutiu lazina kafaru ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgalaat ñu dajewaat ci am néegam fas yéene jàng ab téeréem suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ñu ci bégal ay bégal yoo xam ne tey ñu ngi dund jamonoy internet na am place yi ñuy jàngale diine yépp mën ngaa jaaxaan sa kaw lal tey di ko suivre en direct comme ni muy amee ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi koy def en direct de par le monde allahuma loolu it warul dàqal julit wala yàlla maye tawfiq nga sol sa dàll dem ca jataay ba ngir la nekk ca loolu ci jaamu yàlla ngeen yàgg ko dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ay nit duñu daje mukk ci benn néeg ci néegi borom bi ñu fay jàng téereb yàlla ba lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yi kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñ jataay bi bokk na ci it li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax naan wa rajulun muallaq qalbuhu muallaqun bil masajid loo ko bëgg a bëgg it am na ñoo xam ne daan nañ koy teewi waaye seen soriwaay wala seen feebar wala seen ñàkk jot gu tar dox na diggante ak loolu ñooñu it ñu ngi leen di bégal yonent bi alayhi salaam mu ne bokk na ci ñu yàlla di keral teral leen yowmal qiyaama ñi nga xam ne seen xol yaa nga aju ca jàkka ja te mooy bëggoon nañoo teew mais ngant moo tee ñu dem ñoom it du tee seen yool yàlla bindal leen ko loolu kon ñu ñu bàyyi ci xel bu baax di fàttali mbokk yi rek ni toilette yële dañ ko tojoon di ko defar waaye am na toilette yu ñu ubbi fii ci penku jàkka bi fii morgue bi nekk xam naa di waxit ne liggéey bi yëpp ci ay mën a jàpp ci ndimbal ak wala matériel mi ngi noonu liggéey bu islam la kon incha allah ñu ngi tollu tey ci fukkeelu fan ak benn ci weeru janvier ci deux mille vingt trois muy tombeeg le dix huit ci jumada saniya maam yi di ko tuddee maamu koor ci mille quatre cent quarante quatre su dee Cheikh Ousmane pare na kon mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ne yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi nga xam ne dañuy na gëm in tutiu lazina kafaru su dee da ngeen a topp yéeféer yi yarudduukum ala aqaabikum dañ leen dellu ci seen ndëggu ya fa tanqalibu xaasiriin ngeen wëlbatiku nekk di aji perte balillahu mawlaakum li am kay mooy yàlla mooy seen péeti wa huwa xayru naasirin te mooy ki gën ci ñiy dimbilaate sa nulqi fi qulubi alladina kafaru rob ñun day dañ sànni ca xolu yéeféer yi tiitaange bi ma ashraku billah te la nga xam ne ña ngi koy bokkaale yàlla ma lam yunazil bihi sultaana ci loo xam ne yàlla wàcciwu ca benn lay wa mawaahum naar ma mawaahum naar seen wàccuwaay mooy sawara wa bisa maswa zalimin ak a bon daluwaayu toñkat yooyee mbokk jullit suñu borom mi ngi ñuy woo ci tur bu gën a tedd bim ñu jagleel mooy ay yéen ñi nga xam ne dañuy na gëm suñu borom woo nañu ci juróom ñetti fukki yoon ak juróom ñeent ci téeram bu tedd bi waxtaan yi ñuy def par timis ci jàkka ji waxtu bu ñu jullee timis bu yàlla yombale dana am ñetti minutes yu ñuy jagleel ay bayaan jamono ji ñi ngi toll ci fàttali ko wóote yooyu suñu borom yàlla woo na ay jaamam yépp ya ayuha nnas abudu rabbakum e yéen nit ñi boole seen jaamu leen seen borom waaye ñi nga xam ne dañoo gëm mu jagleel leen ab woote juróom-ñetti fukki yoon ak juróom-ñeent yéeféer yi benn yoon la leen woo ci téeréem bu tedd bi te mooy àllaaxira la leen di wax ya ayuha allazina kafaru la ta'tazirul yawm amma adduna woowu leen lu waral loolu mooy lim bëgg ñu def ko da ngay gëm mu doog a jëriñ li yàlla bëgg lépp ajal zakaatal kooral bu dee gëmoo yàlla loolu du la jëriñ dara amma na yéen ñi gëm nga xam ne bu ngeen jëfee mu jëriñ leen suñu borom yàlla mu ne su ngeen toppee yéeféer yi day daañu leen dëpp ngeen nekk yéeféer na ñoom te loolu it mbokk julit benn réalité réalité la boo xam ne du dañ ba ila yawmi din rawatina bi yéeféer yi jógee Occident ñëw coloniser suñu dëkk yi fekk la ëpp ci ñoom nekk ci diine seen jubluwaay bi gënoon a rëy mooy nu ñuy def ba génn leen ci diine jooju bokk na ci loolu la nga xam ne moom lañ jëkk indi ci ay atte tey jii quatre-vingt-dix neuf pour cent des pays musulmans soo demee la ñuy attewoo yàlla amu fa yonent yàlla amu fa am déet mboolem loi yi ñu leen di atte cosaan ba ci tubaab yi la jógee nga dem ci l'école bi seen xalaatkat yu mag ya rawatina Jules Ferry yi yéeféer ba bokk na lu ñu doon wax pour une société sans Dieu il faut une école sans Dieu su ngeen bëggee génn affaire yi ngëm fokk dañ leen di tabaxal ay école école boobee lu ne daan la ca jàngal suuf yàlla at yi néew yi lañ commencé ci première bi di dugal ay xale yi di leen jàngal quelque sura waaye boo fa jógee jeex na da ngay jàng ba am master ba am doctorat ba nekk professeur kenn du la wax qaala allah kenn du la wax qaala rasulullah et pourtant dañ ko tuddee éducation nationale loolu nag la amee ci wàllu gu nekk mbedd yeeg lépp su ko defee jullit yi war a fagaru xam ne dañoo am seeni noon te dañoo am seen identité ñu fexe seen njaboot xam ne am na ñu koy xëccoo ak ñoom nu ñuy def ba jiitu leen ba njaboot googu ñu jàngal leen diine yaral leen la nga xam ne ma yarul islaam bu loolu amul rek dañ leen di ñàkk te loolu yi dañuy perte àdduna ak perte àllaaxira borom boobu nag subhanahu wa taala ne xam leen ne yàlla mooy seen péete te moo gën koy dimbilaate lu bari ci doomu aadama yi dañuy jàpp ne ni jamono tëdd léegi dafa dund diine day xaw a jafe trop rawatina ñu yàlla nattoo ñu nag Occident waaye mbokk suñu borom mu ne déedéet heure boo gëmee yàlla wékku ci yàlla wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib heure boo gëmee yàlla yàlla moo lay féetewoo te yàlla moo gën te ña nga xamee ne nii dañuy dimbilaate doonte ne yàlla ka muy dimbili mooy ko ko dimbili in tansurullaha yansurukum mooy ñu gëm yàlla wéetal ko dimbili diineem ji borom bi mu ne xam leen ne danaa sànni ci xolu yéeféri ak tiitaange que na am loolu la doon def jamono ba julit ñi di jihaad yàlla da daan sànni ci xolu yéefér yi ak tiitaange moo tax commencement l'islam borom bi wàcc ci téeréem ni su ngeen matee ñaar fukki julit war ngeen mën a dàq ñaari téeméeri yéeféer su ngeen matee téeméer war ngeen mën a dàq junni yéeféer ba xatta bi mu ko woyee fale teewul mu ne su ngeen amee téeméer war ngeen dàq ñaari téeméer ndax tiitaange gi yàlla di wàcc ci xolu yéeféer ngir la ñuy bokkaale amma bu dee julit suñu borom mu ne summa anzala allahu sakinata ala rasulihi wa ala almuminin anzala sakinatahu fi qulubi almuminin yàlla mooy dalal julit loolu mbokk day feeñ ci toolu jihaad waaye day feeñ ci dundug àdduna mbokk ñi am dal ci àdduna mooy ñi gëm allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn ñoom rek ñoo am sécurité ñoom ñoo am ak dal amma ku gëmul yàlla quel que soit rang bu mu am ci àdduna président général milliardaire lu mu mën a doon munul ànd ak dal abadan ndax suñu borom yàlla du ko may dal dal googee ña ko yàlla jagleel moo ñi ko jaamu bokkaale wuñ ko ak dara loolu tax boo demee tey Occident am nañ lépp ba mu des ak dal stress la ñuy nekkee problème ak seen i soxna problème ak seen i doom problème ak seen i liggéey problème ak seen lu ne tout est problème ci ñoom lu waral loolu mooy amuñu la nga xam ne mooy as-sakina amuñu la nga xam ne mooy al amn bi yàlla di jagleel jaamam yi nga xam ne dañ koo gëm borom boobu it nee na loolu gannaaw ba seen wàccuwaay moom mooy doon la nga xam ne nii mooy sawara te dara gënul nekk lu gën a bon lu gën a ñaaw koo xamee ne nii dafay mujje sawara yal na yàlla musal ñu ci sawara kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne wa laqad sadaqakum allahu wa'da yàlla day dëggaloon ne ñeel leen lam leen digoon is taxussuunahum bi izni jamono ba ngeen leen di rey ci ndigalam hatta ida fashiltum ba baa ngeen doon ñoo xam ne da ngeen a nasax ay ragal tiit wa tanaza'tum fil amr ngeen xëccoo ca mbir ya wa asaytum ngeen daal di moy min baadi ma araakum ma tuhibbun gannaaw ba mu leen wonee la nga xam ne bëgg ngeen ko minkum man yuridu dunya am na ci yéen ñoo xam ne dañoo bëgg àdduna wa minkum man yuridu al axira donte ne am na ci yéen ñoo yéen ñu bëgg alaxira summa sarafakum anhum gannaaw ba yàlla wëlbati leen ca ñoom li yabtaliyakum ngiree mu daal di leen di nattu walaqad afa ankum donte ne yàlla jéggal na leen wallahu zu fadlin ala almuminin ndax yàlla bërëmi ngëneel la ci ñi nga xam ne dañoo gëm istusiduuna jamono ja ngeen di daw mi ngi noonu asuud mooy yéeg bu doon dañuy yéeg naan tasidoon amma isaad mooy li borom bi naan istusidoon mi nga jóge ci sayid tayammamu sayidan tayiba mooy suuf kon istusiduuna jamono ba ngeen di daw ci suuf wala talwuuna ala ahad nanguwu leen wëlbati ko jëm ci kenn wa rasul yad'ukum fi uxraakum yonente ma nga nekk ci seen gannaaw di leen woo fa asaabakum xamman bi xam noonu la leen dale lii di njàqare ci kaw njàqare li kay la taxzanu ala ma faatakum ngiree ngeen bañ a tiisu ci la nga xam ne rëcc na leen wala ma asaabakum ak la nga xam ne dal na leen ci ay lor wallahu xabirum bi ma taamaluun amma yàlla day ku ñàkk kumpa la ci li ngeen di def mi ngi noonu mbokk julit suñu boroom nee na yéen waa Uhud te ñu fekke woon tafsir bi depuis àllarba ñaari ci gannaaw xam nañ ni li ñuy waxe lépp ci ghazwatu Uhud la am saxaaba yi dàq nañu leen suñu boroom di leen jaale bokk na ci jaale googu mu ne maa leen digoon danaa leen dimbali la ma leen digoon de def naa ko jamono bi ngeen leen di rey ci ndigalam ca waa Makka ñëw nañ nekk ñetti junni yonent bi sept cent la dese biñ njëkkee def attaque ca ki yoroon drapeau waa Makka bi ñu rey ko ñu beneen général ba ko jël ñu rey ko rey ci ñoom lu jóge fukki nit ñu daal di daw kon borom bi mu ni dimbali woon naa leen jamono bi ngeen leen di rey ci ndigalam loolu it mbokk mi wane ni bakkan kenn amul droit di ko rey lu dul ci ndigalu yàlla looloo tax ba yow ndawal jullit it xamal ne kii ak yéeféer la na am mais amoo droit mukk ni yéeféer rek ñëw rey ko la tax ñu koy rey de tege ci ay réglu jihad yu ñu déterminé loo xam ne ni mi ngi noonu waaye kenn amul droit di rey benn bakkan illa bi iznillah moo tax bi izni borom bi nee na noonu laa leen dimbali ba ngeen dem nag ba lii di ak tiitaange dugg ci seen biir lu ko waral mooy da ngeen juyoo daal di moy te waxoon nañ ko ci début ba ñuy wax qissa bi rasul sallallahu alayhi wa sallam moo ñoo jox ordre armée bi ku nekk mu daal di koy séddale armée bi en général cinq parties la ko daan def mu am ñoo xam ne juróom fukki ay fëttkat lañu mu teg leen ci li ñuy tudd jabalu Roma ne leen yéen lu mën a xew toog leen ba jot sama ndigal bu leen wàcc biñ njëkkee def première attaque ci suba gi yéefar yaa ngi daw ñee nekkoon ci kaw montagne ba ne nañ daw ngiree ñu jël suñu wàll ci ngañaay yi seen njiit bi di Abdullah ibnu Jubayru ne leen déedéet yonent bi dana ma woon bu ñu wàcc lu dul ma ñu jox ndigal gaa yi na waay gaa yi daw nañ waay daal di wàcc dem loole moo tax ba dañu naan ghazwatu Uhud nga ñaayu lislaam la donte ne pertaange jullit ñi la ndax bu ñu toppoon ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ñaayu loolu mooy sax donte ne suñu boroom ngir bañ leen a vexé bañ leen a toroxal bu ëpp mu def na rek wa asaytum waxul wa asaytum rasul waaye def na nag mooy ngeen mi ngi noonu waxul mooy ngeen yàlla waxul mooy ngeen yonent ci yàlla gannaaw bi mu leen wonee li ngeen bëgg ca mbokk jullit yàlla nañu yàlla musal ci lu ñu bëgg dama adama yu bëri suñu xisee ba am bëgg dara mbëggeel googu da leen di dofloo complètement dañuy gis politicien boo xam ne pal gi mu bëgg jaral na ko noonu ak ay waajuram jaral na ko rey nit jaral na ko luun alalam yépp mu def ko du nelaw guddi du nelaw bëccëg ngir loolu dañuy soo xam ne bëgg jigéen tax na mu noonook ay famem bëgg jigéen tax na mu wàcce ngorom keneen ki nga xam ne nii lan la bëgg alal nu mu ko mën a amee baax na gis ngeen suñ ndaw ñu jël seen bakkan teg ci océan bi barsaq wala wala barcelone barzaq wala barcelone te c'est pas évident que bu ñu demee la ñuy fay seet sax dañ ko fa am waaye maadama bëgg biñ ko bëgg xalaatatuñu lu ñuy ragal xalaatatuñu coono moo tax borom bi mu ne am na ci yéen ñoo xam ne bëgg giñ bëgg àdduna fàtte na loolu leen digéelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga la wayu julit del bàyyi xel lépp looy bëgg ci àdduna na mbëggeelu yàlla jiitu ci yow lépp loo xam ne nii da ngay jàpp ne yaa ngi koy wuti te loo ko nar a génni mooy mbirum yàlla xamal ni bu doon leer na la ne juróomi baaraam nga am su ma ko defee dana am àdduna ak li ci biiram maa koy moom jaru ko jaru ko su ko defee nga la waay loolu julit war cee bàyyi xel bu baax borom bi nag nee na leen saxaaba yi am na ci yéen ñoo xam ne ñoom àllaaxira lañ bëgg na am ndax bi ñu dawee bari na ci ñoom ñoo xam ne dañoo replié wu sax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ci ñu wane ak njàmbaar mi ngi noonu yu jéggi yu yoo xam ne nii jéggi na dayoo bokk ne que mi leen ci doon nettali Anas ibn Nadr ba nga xamee ne ni ba mu déggee ñu ne rey nañ yonent bi saxaaba yi daw nañ dafa xotti poche bi mu doon dugal jaaseen dugg ci yéeféer yi di xeex ba biñ ko reyee daanaka kenn mënu ko xàmmee gis ngeen loolee kon borom bi ne am na ci yéen ñu bëgg àllaxira ci julit loolu lay war ñaan yàlla suñu borom mu ne bal tusiruuna alxayata dunia wal axiratu xayrun wa abqa li ëpp ci ñeen àllaxira lañ gën a bëgg adduna lañ gën a bëgg mën na àllaxira dag moo gën maadaama nag mooy nañu mbokk ay du yem ci bopp borom suñu borom mu ne sarafakum anhum kattan gi ngeen amoon ba dàq leen suñu borom wëlbati loolu te waxoon nañ leen ko ci dars yi passé mooy Xaalid ibn Walid tuubagul ànd na ak ñi mu àndaloon dem taxaw fa ña yonenti boo xam bu leen wàcc dem yéeg fañ fañ nekkoon ci loolu lañ commencé di sànni jullit ñi ay fitt loole tiital leen ñu daw borom bi mu ne nag dama koo def ngir nattu leen waaye nag baal naa leen ndax yàlla borom yi ngëneel la ci jullit ñi doonte ne loolu ñu def ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk daw bi su xare yonenti bi alei salaam lim ne juróom-ñaari bàkkaar sab al mubiqaat bokk na lu mu ca boole jullit ñi di jihaad amir bi joxewul ordre pour ñu replier wu yow nga daal di daw ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk waaye borom mu ne baal naa leen borom bi mu ne mooy jamono bi ngeen di daw kenn ci yéen dëppul kenn xalaatatul kenn te loolu sa nekk ak suñu mag ba Cheikh Souleymane Gueye rahimahullah ci benn jataay doon def waxtaan moom fa benn ancien militaire ñuy wax affaire àllaaxira te mooy alaxira naka borom bi nettalee kenn du tal kenn du ndey du bàyyi du nangam mu ne aaya bi ku musul def guerre rek mënoo ko xam mu ne tant que musoo def guerre ba nekk plein combat bomb yi di dal kanu yi di takk nee na doo xalaat xarit ak ndeeg bàyyi lenn xalaatutoo ko gis ngeen loolu nag loolu mooy la nga xam ne moom la borom bi di wax wala tal wuna laaxaat kenn toppatootul kenn te mooy yàlla mayul sakina yonent bi alayhi salaam mi ngi sax ñu ne à peu près treize personnes ñoo ko waroon bokkoon na ci Aboubacar Omar ak Ali ibn bi Ali ibn bi Talib radiyallahu anhu muy woo saxaaba yi kaay leen kaay leen suñu borom mu ne ma teg leen tiis ci kaw tiis te bokk na loo xam ne ni yàlla seetaan na ko yéeféer yi am na ñu ne ci cheytaane la jóge am na ñu ne déedéet te rayoon Musab ibn Umayr moo ko jaawale ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne Muhammad dee na rey nañ muhammad sahaaba yi tiit rey nañ muhammad rey nañ muhammad loole borom bi subhanahu wa taala def ko ngiree lan ngiree woyofal natt bu leen dal moo tax mu ne teg naa leen tiis bu gën a màgg tiis bu leen dal ngiree ngeen bañ a tiisooti ci li leen dal mooy sahabatul kiram bi ñuy jàppee ne yonent bi alayhi salaam dee na ñu jàpp ne adduna tukki na ñu bëri jàpp ne dina fay na waaye ba ñu demee ba yëg ne ndekete information boobu du dëgg yonent bi deewul fàtte nañu mboolem lu leen daloon ci ay ngañaay loolu la war a fi tuddee déegu fomm masalan tey jii buñ la woon ah yow day oto bi fi jële woon sa doom yi dañoo def accident mi ngi noonu oto ba daal ña fa nekkoon ñëpp dee nañu nga jóg kër kër yi dem bi nga ñëwee fekk sa doom taxaw lu xew nga ne sama tànk rek moo damm gaa yi looy wax alhamdulilah ah lu tax mooy ndax la nga xam ne moom moom moom la teggi sahabatul kiram it noonu la benn soxna bu bokkoon ci bani najar nga xam ne ñooñu ñooy nijaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maamam abdul muttalib yaayam ci ci madina googu la jóge woon ba gaa yi jëkk a daw ñëw yonent bi deen yonent bi deen mu am yeneen xabaar yi ñëw déedéet yonent bi deewul nit ñi jaxasoo kenn ci jigéen ni bani nadaar yi ñu ne am na ko dajeeg moom ne ko yàlla day dogal na sa doom ju góor ja day gis naa ko mu faatu mu ne ha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye ana yonent yàlla bi ñu ne ko mi ngi ci gannaaw am keneen ku ñëw ne ko sa baay ba day inna lillah faatu na de rey nañ ko mu ne waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye ana ana yonent bi alayhi salaam am ko dajeeg moom ne ko sa jëkkër faatu na mu wax la mu waxoon waaye ana yonent yàlla bi bi mu demee ba ñu dem ba jàkkaarloog yonent yàlla bi mu ne ko ko mucc nga beneen musiba amatul ci sama dund koo xam ne nii doomam jëkkëram baayam dee nañ ci ci xasatu uhud loolee mbokk kon moo tax borom bi ne teg naa leen tiis bu màgg boo xamee ne nii ban demee ba teggeeku yeneen tiis yi yëpp dafa daan woyof ci yéen loolu tax sahabatul kiram ba ñu ànd ak yeneen bi nit bi rek amatuñu leneen loo xam ne nii ah méttee ci leneen moo tax bu ne li kay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum borom bi nag mu ne li ngeen di def moom dara ump ma ci mi ngi noonu jalla wa ala
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بارك الله فيكم سني برومني ثم أنزل عليكم جنة بمواتيتين من بعد الغم جنة ونجقر جلندل أمنة نعاصا kóolute goo xam ne ak ngëmmint la yarsha taifata minkum boo xam ne yiir na benn kuréel ci yéen wa taifatun qad ahammathum anfusuhum moo am beneen kuréel boo xam ne ñoom di itteel na leen seen bakkan ya yazunnuuna billahi gayra alxaq ña ngay jort ci yàlla lu àndul ak dëgg zanna aljahiliya jortoog gaa yu réer ya yaquluuna hal lana min al amri min shay shayin ma ndax danañu ñeel ñun ci mbir mi lenn lu mën a doon qul inna al amra kullahu lillah ñeel mbir yi day lépp ñeel na yàlla yuxfuuna fi anfusihim ma la yubduuna lak ña ngay nëbb ci seen bakkan ya loo xam ne feeñaluñ ko ñeel la yaquluun ña ngay nekk di wax naan law kaana lana min al amri shay'un su doonte ne ñeeloon nañu ci mbir yi dara day ma qutilna hahuna kon kenn duñu woon rey fii ñu nekk nii qul law kuntum fi buyutikum neel moo ne day bu ngeen nekkoon ci seen kër ya la baraza allazina kutiba alayhim al qatl dana génn ña nga xam ne dañoo dogal ci ñoom ak dee jëm ila madajiihim te fañ war a daanoo tëdd fa deeye fa waliyabtali allahu ma fi sudurikum kon yàlla def ne lii ngiree natt lu nekk seen dënn yi waliyumahissa ma fi qulubikum ngiree it mu yaa di nekk di laabal nekk seen biir xol ya wallahu alimun bi zati sudur yàlla day ko xam la la nekk ci biir dënn yi mi ngi noonu mbokk kon suñu boroom bokk na ci yërmande bu mu defal sahaaba yi xabaaruk faatug yonent bi alayhi salaam xam nañ ne amul yéeg nañ ci ñoom it def nañ erreur ci daw gi ñu daw yonent baa nga ca champ de bataille ba ba tey ci noonu la ëpp ci ñoom nag jilli suwa yàlla wàcceel leen dal wàcceel leen ak njëmmiint ca bokk na ci ku mel ne jaabir ibn abdullah doon wax naan bi may delluwaat ci yonent bi alayhi salaam sama jaay si wadd na ay yoon ndax gëmmintu te mbokk gëmmintu ku ragal xam ngeen du gëmmintu di am déet kii am na tiit ak njàqare bu nekk kaw lalam sax du nelaw waaye yàllaa leen dolli ngëm dolli leen fit boo xamee ne nii sahaaba yi ragalatuñu dara loola tax it ba dañ naan gëmmintu ci toolu jihaad loole ci yàlla la jógee ndax jàmbaar rek a koy def amma gëmmintu ci biir julli loolu ci cheytaan la jógee loolu mi ngi noonu mooy nuance mooy diggante nelaw ak ñàkk nelaw suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ñenn ci sahaaba yi ñoom loolu yéer na leen ba réplié wu nañu ñi ngi ñëw di dili soit yeneen ci bali sat wasalaam amma beneen kuréel ba ca ñi nga xam ne seen ngëm dëgërul ñoom seen bakkan mu leen yitteel noñuy def ba raw booleeg di wax wax yoo xam ni di jort ci yàlla lu àndul ak dëgg te mooy jàpp ne l'islam c'est fini jàpp ne ñoom alko nañu te mooy jorti jahiliya mi ngi noonu te loolu it mbokk julit du mel noonu julit day rafet njort ci yàlla quelle que soit situation bi ngay dund lu ma jafe-jafe lu mu métti métti jàppal ni ab étape la rek mais la ca gannaaw xéewal lay doon loolu mooy jort bu rafet bu julit war a jort ci boromam jalla wa ala yéen a ngi gis yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bu ko yàlla joxee ndigal na gàddaay moo ko bani israil ñuy dem ba ci mer rouge ñu gis firaw naa ngi ñëw ak pëndam ak armée boo xam ni wóor na leen mënuñu ko dékku ñu ne ah Moussa inna la mudrakoon c'est fini daan ñu dab daan ñu rey ñoom ñëpp mu ne kalla inna ma ay rabbi sa yahdin déedéet maa ngi ànd ak sama borom dana ma jubal borom bi ne ko dóoral géej gi mu dóor géej gi mu jóg fukki yoon ak ñaar loo xam ne kenn mënu ko imaginer naka noonu deew jullit xat-xat yow mën na nekk lu mu jafe-jafe lu métti métti njortal ci yàlla njort bu rafet rek te ne lii yàlla subhanahu wa taala dana ma ci génn mi ngi noonu borom boobu nee na yi ñooñu seen xol feebar nekk ca ay jullit lañu waaye nag xol feebar mu nekk seen xol ñi ngi doon wax naan ñun dey ndax mbir bi ñeel nañ ci dara te mooy yonente bi alei salatu wasalam wax naa leen ne bi muy di bi muy shura di diisoo ak sahaaba yi ca jàkkaam ja li ëppoon ci mag ñi dañ ni nañ toog xaar waa makka ci biir madina ndaw ñu ne non dañuy génn nañ dem jihaad surtout ndaw yu fekkul woon badr loolee tax yonente bi alei salaam génn ñooñu nag di mag ñooñu naan ndax ñun mbir yi ñeel nañ ci dara ñun topp ñu suñuy mbir borom bi ne leen hey inna al amra kullahu lillah lépp ci mbiri yàlla la doge quel que soit mesure bu doomu aadama mën a jël li yàlla li neex yàlla rek mooy am am déet li neex yàlla rek koy am yàlla rek moo am droit dogalal ay jaamam yoon buñ ko war a jaamoo innal amra kulluhu lillah loola tax it képp ku tëral diine yàlla ji yoon bu bokkul ak la yàlla tëral yaa ngi dir yàlla mbagg te ku ko dir mbagg dana la toroxal innal amra kulluhu lillah dogal yépp ci yàlla la jógee borom bi nee na ñu ngi nëbb seen bakkan yi di waxante seen biir loo xam ne yow yëgoo ko yonent bi alei salatu wasalaam naan xam ngeen ne ñun bu doon am nañ ci mbir bi kaddu kon duñ woon rey suñu mbokk fii ma qutil na hauna ñi ñu rey waxuñu loolu mooy ñiy dund ñoo naan suñu mbokk yi ñu rey fii xam ngeen ni topp gi mu topp waxi ndaw ñi moo tax ne budul woon ak loola duñu rey fii waaye mbokk li yàlla wax yonent bi alayhi salatu wasalaam it ñi ngi lay nëbbu ci seen bakkan mbokk yonent bi xamul woon kumpa yonent bi alayhi salatu wasalaam xamul woon kumpa lu dul lu ko yàlla subhanahu wa taala nettali suñu borom yàlla nag ne ñi ngi naan buñ toppoon seen digal duñ leen rey fii ay waay ñoo ñàkk xam gis nga bu ngeen nekkoon seen kawlal ya jihaad amul dara amul ngeen war a deeyee fii bu dee jotee da ngeen wàcc seen lal ñoo dee si fii moo gaa yu accident bi nga xam ne am na Sénégal ñu ne mooy accident bi gën a grave bi am yu am fële ci bëri Kaffrine ñuy départ Dakar ñuy départ Tamba ñuy daw guddi gi yëpp di daw guddi gi yëpp ba a benn subhanallah ba baa ñu yegg si ci loo xamee ne nii wallahi mën nga wax ne peut-être cinq secondes wala sax trois secondes mën na am budul buñ ko juuyonte woon rek accident bi du am mais fi pneu bi di toje fekk oto bi mi ngi ñëw gis ngeen quarante personnes foofu la yàlla tuddoon ñu war faa dee ana nu ñu mënoon a xalaate loolu bal lu gën a yéeme loolu da ngay gis benn sëñ càm boo xam ne nii day feebar wóoluwul médecin Dakar jël ay millions jël avion na ma nga jëm Angleterre wala ma nga jëm Paris ndekete foofu la war a dee ji ah ndekete foofu la war a dee ji bokk na ci histoire yu bani Israël nekk di seen téere yi ñu ne yonent yàlla Idris xam nga suñu borom na rafanahu makanan aliya am na sax mu fassiroon yoo xam dañuy jàpp histoire boobu donte ne yàlla yàlla moo gën a xam la gën a wér mooy doomu aadama ci suuf lañ dee waaye gars yi bokk na la ñuy nettali ñu ne yonent yàlla Idris daf ne malakul mawt daf ne benn xaritu malaakaam waaw malakul mawt bu muy jël si kaay jël mooy yóbbu ma ndax ma ma ma mën a rëcc nee na ba mu yégee ne datam dee jot na mu ñëw jël yonent yàlla yusufa naaw ak moom ba asamaanu ñeenteel fekk malakul mawt mi ngi taxoon naan subhanallah subhanallah nee na Idris mu ne ko looy subhanallah mu ne yow yaa ngi ci suuf borom bi ne ma demal asamaanu ñeenteel nga jël fa ruuxu yu yu Idris man ma jaaxle lool dégg nga yaa ngi may fekk si fii loolee mbokk ay ay mbir la yoo xam ne julit moom day war a gëm ni gis nga sa waxtu dee bu jotee da ngay dee. wallahi suñ borom ñu woon exemple yu yéeme ci 11 septembre bokk na lu gars yi di wax place bi ñu gën a protégé ci kaw suuf mooy Pentagone. Pentagone mooy fa la armée américaine seen chef yi fa la ñu nekk mooy place bi ñu gën a protégé ci kaw suuf. mais xoolal bi dee jotee yàlla jël benn avion na tell Watson tër jël benn dóor pentagone trois mille morts ah loolu kon borom bi subhanahu wa taala mu ne gis nga bu dee bu jotee fokk nga dem fa ngay dee ci ak bari mbokk yi ngeen xam ñu dee te fañ dee musuñoo xalaat teg fa seen tànk waaye bu dee jotee il faut ñu dem mënuñu ko mënuñu ko tee dem borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne loolu kon yàlla def na ko ngir nattu li nekk seen dënn yi ba julit ñi génne seen wax yu baax sahabatul kiram ñi seen ngëm dëgër heure bu ñu gisee yéefir lu ñu doon wax haza ma waadana allahu wa rasul li du dara li la ñu yàlla digaloon amma bu dee ñi seen xol woyof ñoom gis ngeen li ñuy wax lii xam nga ne lépp yonent bi ñu ko yóbbe nangam nangam ngir mu gën a nekk seen dënn yi waaye def na ko liyu maxaysama fi qulubikum ngiree laabar seen xol yi te mooy julit xam ne yàlla da koy nattu xare ngeen ca badr gañe yéeféer yi ñu bari ci yéen yëg seen bopp jàpp ne ah ñun kenn mënuñoo dékku borom bi nag na leen du noonu indi ay nattu ca loolu it mbokk nattu loolu la war a jëriñ jullit mooy dolli ko ngëm dolli ko wikku ci yàlla dolli ko dellu ci yàlla borom boobu nag mun a yàlla xam na li nga xam ne moo nekk ci biir dënn yi kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
jazakumullahu khaira suñu borom jalla wa ala mu ne inna lazina tawallaw minkum ña nga xam ne day dañoo dawwal bëtiku ci yéen yawmal taqal jam'an jamono bi muy daje ñaari mbooloo ya innama stazallahum shaytan tarxiisal na leen shaytaane day bi baadi ma kasabu ay tarxiisa na leen dugal leen ci ak moy bi baadi ma kasabu ci lenn la nga xam ne fagg woon nañ ko avant ñuy ñëw waaye nag wala qad afa allahu anhum yàlla jéggale na ñeel leen inna allaha ghafurun halim sa borom yàlla mooy jéggalaate mooy ki nga xam ne mooy ki lewet du gaaw a dal ci ay jaamam ya ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm la takunu kallazina kafaru boo leen mel mukk ne yéefér yi wa qaalu li ixwanihim ñooñu nga xam ne dañuy wax seen doomi ndey ya ida darabu fi l ardi aw kaanu guzza bu ñu nekkee di dóor ci kaw suuf ay di tukki ci kaw suuf wala ñu nekk ci ak ab xeex law kaanu indana ma maatu wa ma qutilu ñu naan ñoom de bu ñu nekkoon ci ñun du ñu dee kenn du leen rey li yaj'al allahu zalika xasratan fi qulubihim ngir yàlla def loolu pertaanga ci seen xol ya wallahu yuhyi wa yumiit yàlla moom mooy dundal te yàlla mooy rey wallahu bima taamaluuna basir te yàlla day li ngeen di jëf ku ci ku kuy nekk di ko gis la wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum na doon dañ leen a rey ci yoonu yàlla wala ngeen dee normal la magfiratu min allahi wa rahma fexe ba am njiggal gu ba woo ci yàlla ak yërmande day xayru mimma yajmaun moo gën ci lépp loo xam ne ñu ngi koy dajale mi ngi noonu mbokk ñi ngi xare uhud ba tey lan moo waral bi yéefér yi contre attaqué lu ëpp ca jullit ña daw suñu borom mu ne ñooñu day seytaane moo leen daq ngir lañu faggu woon ci bakkaar avant ñuy ñëw loolu it mbokk da ngay gis ni bakkaar bokk na gaafam dalay yóbbu ci beneen bakkaar aka bari ay jeunes yoo xam ne seen jubluwaay mooy naa dem sàcc am lu ma am waaye sàcc googu yóbbu leen ñu daal di rey nit seen jubluwaay doon rey nit waaye ñoo dem ci bàkkaar mu yóbbu leen ci lu gën a bon aka bëri ay xale bu jigéen bu xalaat waaye naa dem jaay sama bopp loolee ba mu demee yóbbu ko ca baar ba mu daal di commencé naan sàngara commencé sàcc commencé kaza commencé kaza loolu it la lu baax di yóbboo ci lu baax ki nga xam ne day ñëw ci jàkka ji mën na fi ñëw fekk fi benn dars mën naam sax loolu yëkkati ko woon ñi ngi laaj ndimbal mu joxe mën naam loolu yëkkati ko woon ay kon la ñu defoon ci bàkkaar moo tax ñu daw looloo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam jataay yi yim daan ubbi yépp la mu ko daan jëkk ubbi mooy ñaan yàlla jéggal yaa ngeen ko déggee inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yal nañu yàlla jéggal yal nañu yàlla musal suñu ay bakkan ak suñu jëf yu ñaaw ndax ay bakkaar day tax doomu aadama bi mën a def tereg yàlla moo tax borom bi mu ni bakkaar yi ñu indi woon ci xare ba moo leen li lii tax dal leen yéen ñi fekk woon njëlbeenu bind bi te xaswatu uhud borom bi daa commencé armée bi rek daa commencé wax waxu xeex bi rek daa dina jullit ñi bàyyi leen riba am déet kon lekk riba day tax daw ci bisu xeex ah wor ak wuruj ak i bokkaale ki biddaa day tax daw bisu xeex moo tax borom bi subhanahu wa taala ne loolu moo leen dal waaye nag yàlla baal na leen ndax yàlla mooy alxafuur te yàlla mooy xalim mooy du gaaw a dal ci ab jaamam da ngay def ay bàkkaar mu lay seetaan ngay def ay bàkkaar mu lay seetaan bokk di ci mbaaxam fii ak sukuraatoo boo dee boo boo boo tubbee mën na la baal borom bi nag mu ne awaay julit ñi bu leen mel ne yéeféer yi donte ne lool rek la julit bu nekk war a gànnaayoo e yéen julit ñi bu leen mel ne yéeféer mbokk julit du mel ne yéeféer bokk na la gën a garaaw mooy nuru nurul yéeféer ci seen diine loolu day yàq sa diine nuru nurul yéeféer ci seen culture seen i aada yu ñuy jagloo ñoom ba nga xamee ne boo ci duggee ku la gis ne kii ab yéeféer la loolee lu grave la yéeféer yooyu bokk na seen mbir suñu amee mbokk mu tukki dee wala mu dem xeex dee ñu ne ah moo ko def bu toogoon ci ñun du dee borom bi mu ne loolee day yàlla def na ko pertange ngeen leen xanaa xamuñu ne yàlla mooy dundal te mooy dee te mbokk gaa ñi demul jihaat ndax deewuñu ah kay aka bari ku dem guerre bim ñi ñu tàgge ko ñu dul jeex ñu bàyyi woon ci dëkk bi moo tax suñu borom subhanahu wa taala ne mooy dundal te mooy dee te bokk na lu ñuy mooy mooy mooy dundal te mooy mooy mooy jagleel ak dee ku ko neex bokk na ci liñ jàngoon alal ba passé wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi iznillah amul benn bakkan buy dee lu dul ci ndigalu yàlla kon loolu pertanga lay doon ci ñoom amaa bu dee julit lu muy wax moom julit moom day wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñëpp moomelu yàlla ci moom la ñuy delloo daa di muñ muñ gu rafet moo tax borom bi ne yonente bi sam ne ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu lahu xayr julit moom mbiram dafa yéeme léppam yu lay doon ndax bu ko xéewal dalee mu sant yàlla bu ko nattu dalee mu daa di muñ muñ gu rafet xam ne lii la yàlla dogal amaa yéeféri nag day rëccu di wax naan law law yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne yow jullit bul wax su ma yëgoon dara nee na lépp loo bëgg jublu ca ihris ala ma yanfa'uka loo bëgg xam ne lii lu baax lu jublu ca wasta'in billah dimminikul bi ci yàlla wala ta'jaz bul lott ci dara bu dee yàlla dogal na dara mbir ba neexu la qul qaddara allah wa ma sha'a fa'al neen lii la yàlla dogal te la ko neex lay def waaye nekk lan su ma yëgoon su ma yëgoon soo yëgoon ak soo yëgoon li neex yàlla rek ay am ñu ngi noonu li neex yàlla rek ay am borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne xam leen ne yàlla li ngeen ci def yépp mi ngi jàkkaarloog yéen te aaya boobu it gànnaa yoo ko moo lay may may al ihsan bi ma taamaluun ba ngay liggéey ba ngay commerce ba nga nekk ci njaboot ga ba nga nekk jihaad foo mën a nekk suñu borom mu ne maa ngi lay gis borom boobu nag subhanahu wa taala ne mbir bi du dee ca toolu jihaad mbir bi du dee sa kaw lal xam nga liy mbir bi fexe ba booy dee dee yàlla njiggal yàlla ak yërmande yàlla mi ngi noonu borom bi nee na moo gën lu ñuy dajale ci kaw suuf doomu aadama bi amoon trésor adduna yépp dee yàlla kéefër lu mu koy jëriñ amaa boo dee am njiggalu yàlla ak yërmande yàlla loolu mooy taxe bi gën a màgg looloo tax mboolem jullit bu dee farata la ci mboolem jullit ñu nekk ca koñ ba yëg ko ak i mbokkam farata la am mbooloo bu dem taxawal ko ci seen kanam ñaan yàlla jéggal ko ñaan yàlla yërëm ko ndax loolu mooy jubluwaay bi gën a rëy bu ñuy génne ci kaw suuf mooy jéggalu yàlla ak yërmande yàlla loolu it moo tax bu ñu demee ba ca armée la it ña koy gunge suñ demee ñaan yàlla jéggal ko ñaan yàlla yërëm ko yonente bi alayhi salaam li rek la doon wax jéggalul leen seen mbokk bi ñu ngi koy laaj amaa nag am na ñu cay dolli fukki xalaas ak benn ak ñeen fukki nangam ak ay nanseek ay isaajaak kilométrique loolu mbokk seeni xalaat la waaye jullit dafa war a doy loola doyoon yonente beeki sahabaam yonente beeki sahabaam da la leen doyloo woon mooy bu ñu sulee am néew ba pare allahuma xfir lahu warhamhu ñaan yàlla jéggal ko ñaan yàlla yërëm ko saxal ay laajam jamono bi ñu koy tont wallahi bu ko yàlla nangoo mboolem loo naroon a ñaan dugg na ci biir loolu amul lenn loo mën a ñaan lu génn njéggalu yàlla ak yërmande yàlla kon nga ñaan ko ci ñaan gu sell moo gën li ngay gis ci armée li fatiha ak ñeent fukki xalaas ak benn bu doon da ngay test bala ngaa jàng kaat ñu ne waaw bu ngeen paree ngeen dolli ci juróom-ñaari inaan sax naaw bala ngaa dóor ñaar ñu ne waaw bu ngeen paree dolli leen ci ñeenti mbokk loolu parax parax jooju nga xam ne tegewul fenn nit ñëpp concentré la woon dellu woon ci yàlla ay yàlla sa jaam bi allahuma ixfir lahu warhamku ay yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla na nga ko yërëm yàlla na nga saxal ay tontam jamono bi ñu koy laaj mbokk li muy sunna képp ko topp sunna texe àdduna ak alaxira képp ko muy sunna def na la ko neex yàlla na yàlla saxal ñu ci sunna dekkal ñu ñu ànd ak waa ahlu sunna dekkal ñoo yonente bekki sahabaam ci àddina ñuy kawe ya wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain fekk ab yéeféer mu daal di koy rey ana kooku nu ñu leen di attee yowm alqiyama ki nga xamee ne nii mooy ab yéeféer kookee amul benn tuyaaba boo xam ne dañ ko koy jegleel alaxira suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne kenn du leen taxawal benn pëse yéeféer la yéeféer la waaye yow mi nga xam ne yaa fekk ab yéeféer nga rey ko da nga tooñ sa borom jalla wa ala tooñ yéeféer bi loolu da nga xam ne bakkan bu araam heure boo ko reyee def nga ñaari mbir léegi sax mën naa dem ba ñett mooy bu dee ne rey nga ko tooñ nga sa borom ndax nenul bu ko rey tooñ nga ay mbokkam te it tooñ nga la nga xamee ne nii mooy moom ci boppam bu doon yéeféer bi dafa am ak judit ñi àq yéen a ngi jàng suratul maida mu ne wa in kaana min qawmin baynakum wa baynu misaqun lu ci yàlla teg fa diyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqaba su doonte ne yéeféer la ñu am ak jullit ñi jàmm nga rey ko bokk na loo xam ne ni dañ naan da ngay jox diya na nga xam ne ay mbokkam kon rey gi nga ko rey tooñ nga ay mbokkam gannaaw ba it tooñ nga sa boroom looloo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam dane man qatala muahadan lam yarih rahiqatal janna koo xam ne nii ay yéeféer ay chrétien dañoo nekk ak ñoom jàmm suñeente ak ñoom pacte yow nga wëlbati ko rey leen sans jihad yonent mu ne xetu àddina du la xeeñ loolee kon ñu xam ni danger bu rëy rëy rëy rëy la ci rey bakkan lu dul da nga koo rey ci dëgg wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam waaw mu wax bisimilah rek sant rek ca mu dem noonu sant daal mbokk weesuwul ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala wàcce fa jàmm ak barke maadaama fa nga dëkk julli yaag ñaan yaag yépp loolee da ngay gis ne lu am solo la loo fay def moo koy moo koy aar dara nekkul na nga ñaan yonent yàlla ibrahim ba mu sancee makka lam ñaan yàlla mooy rabbi jal haazal balada amina yàlla na nga fi wàcce jàmm ca it xam li ne doomu aadama fu mu dëkk rek jàmm ko fa nekk gis ngeen li xew Syrie li xew feneen nit ñi bàyyi seeni château bàyyi seeni lépp daw ngir uti jàmm kon jàmm mooy njël beenu xéewal gu doomu aadama dem ci dëkkuwaayam soo fa amee jàmm nag la ci des muy xéewal gu la fay fekk si moo tax ibrahima ne warzuqhum min min asamarat mooy may leen jàmm te wërsëgal leen ab dund gannaaw ba li gën a tasaare ci àdduna bi mooy xiif de partout ñu jógee xataa sénégal gi ñu jóge ay jolof saalum nangam la leen ko yóbbu mooy xiif kon doomu aadama dëkkuwaayam bokk na lu koy may sécurité mooy benn mu am fa jàmm am fa dund bu doy kon it heure bu la yàlla sanculoo néeg sanculoo kër nga ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ko kërug jàmm kërug xéewal kërug yërmande ni ngi noonu yaa ngi fa dëkk julli gaag yaa ngi fa def yëpp ay ñaan la ba baa nga fay jógee wallahu subhanahu wa taala alam waaw xam naa kon ñu waaw ñu mujj ci mbokk ba la rek waaw ala kulli xaal jënd marchandise ba mu yokk mu jaay ko loolee dara nekku ci bu nekkul dund boo xam ne ni dañ koo dañ koo soxla bokk na daal loo xam ne nii bi lislaam dul nangu mooy ñi nga xam ni dund bi day ñëw ñu profité jël lépp jël ko denc ngir marché bi daal di jeex am na fi ñu may nettali koo xam ne nii benn magasin la yor cent tonnes dana ko jël dugub denc ko foofu tëj loolu nag bu dee da nga koo ñëpp dañ koo def marché bi dafa marché bi dara amatu ci prix yi enflammé wu loolee li l'islam doon tudde ihtikar amma bu dul dund bu nit ñi soxla na doon loolee ay oto la ay montor la ay tissu la ay yu kenn xamul prix bi arrangé wu la dara nekkul nga denc ko ba prix bi baax loolu daal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma mbokk bi dafay laaj mu ne dafa am lenn ci ay ay sunni di ñu gis naan dañu yor kurus ndax lenn ci lu ñu wax ci salaf ne jiitu woon dañ daan yor kurus waaw naa am na ay riwaaya yi wax ne daa ku mel ne Abu Hurayra daana ko yor wala ay Abi Darda loolu ñëw na ci ay ay riwaayaat amma boo dellu woon lu mel ne silsilatu hadis daif bu Cheikh Nasruddin Albani te lay wax ne jamono saxaaba yi baatu subha amul woon kurus am xamuñu ko woon loolee xamuñu ko woon jamono saxaaba yi su ko defee li ñuy wax daal mooy kurus nekkul lu ñu aaye su dee yaa ngi ci jublu rek wàññi la ngay wàññi wàññee ko say baaraam nag mooy la gën loolu la yonent bi doon def loolu la yonent bi ak i saxaabaam doon def am na xadis bu tawrat mooy na ngeen def seen baaraam ndax dañ leen di laaj yowmal qiyaama donte ne am na luñ ca wax waaye la kulli xaal ñu ngi noonu am na xadis su tawrat ci waxin su ko defee li ñuy tere daal mooy kurusuk parparloo lu su ko xam ne mbooloo moo ko yëkkati ñëpp xam ne fii nga far boo xam ne nii wóor na la niñ ko nasee lañ cay wàññi bokkul ak la yonente bi alei salaam doon jëfee wala nekk ci mbooloo mi yor sa kurus ñëpp na wan nit ñi man kat daa ngir bi zikrullah yow demee noonu waaye bu dee ne yow sa xel mënul am yenn concentration yi bëgg naa xëy wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu ala kulli shay'in qadir téeméeri yoon dama ciy jaxasoo ma ne naa wut ak kurus compté ko teg loolu rek ma ci sama jubluwaay loolee dañu naan defal ko say baaraam mooy la gën waaye kenn du wax la ngay def dafa xaraam wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in waaw ñu ngi ñu ngi fàttali rek am na 1000 francs yi ngeen doon barkeeloo par mois ci jàkka ji incha allah ngeen mën ko fàtte